bismillah dund gi seer na de lool laas ne bi nga xam ne moom lañ doon teg te suukar sañ jëlee ca xam ne nag maanaam moom la ñuy jëlee ca waaw yat wa day dal na ca kaw commerçant ya waaw waaw la sabab nag maanaam ñu dakal loolee mooy suukar si nga xam ne kon njëg la daa mujj yokk ñëf conseil national de la consommation tey ci talaata ji kon lañ ko convoqué vingt-quatre heures yéene kaa ne taxe bi nga xam ne kon daal dinañ koy dakkal suukar sa gouvernement wu Sénégal bi mbaa du na jural nag ab jee gouvernement bi ci koom waaw waaw source aana yow nguur gi ñàkk ci lu tolloo juróomi milliards nga ma lan 24 heures yéene kaay ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali gis nga nguuru Sénégal gii waaw waroon nañoo jéem a roy ci Côte d'Ivoire gis nga 2020 gouvernement bi ci boppam dafa tere lépp luy xeetoog suukar suñuy jëlee ci bitim réew daal ko dugal ci biir Côte d'Ivoire googe fii ak juróomi at yii di dikk yéene kaay gi bi yëpp nag laa gis nga fi mu Amém! taxi yi nga xam ne kon daal dinañ koy dakkal nag ci suukar sañu jëlee ca bitim réew gële duwaana def lu nu mel réew mi ko tijjee njëg yi ànd ak dal da di fara ta farata la de le tee mooy yéene kaa ne ngir puus na gouvernement bi lée ngir mu yokk njëg yi suukar si waaw xanaa xamoo leen ne yenn ci commerçant ñoo ko tey daal di koy nëbb ngir suukar si manqué aha yéene kaa gi ne waaw magasin yi nga xam ne compagnie sucrière sénégalaise moo ko moom la fa nekk ci suukar suñ fa denc toll na ci ñaar fukki junni ak juróom-ñeent laa wax ci ay tonnes vingt neuf mën nañ koo dundee lu tolloog weer weer ak fukki fan ak juróom 45 jours laa la wax évidence seene kaa ne yi nga xam ne nag maanaam daa yokk lool fépp nag njëg yëpp a seer Macky Sall day am na lu comité de lool Aminata Assome Diatta dool nag ca digg booba laa la wax dañ koo ah daal di nay dakal taxi yi nga ne moo taxoon suukar sa yokk les fois yéene kaa ne yi nga xam ne daa yokk waaw Assome Diatta xam nga kan la tuumaal corona gi ak jafe-jafe bi nga xam ne dox na suñ diggante nag sëkk maanaam jël ay dogal yu ànd ak responsabilité waaye bàyyi xel tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne askanu yëpp ñoo ko bokkandoo intérêt général ba national waaw libération yi ne kaa ne njëg a seer dund gi dama ne la njëg yëpp a seer ci produit yu bëree bëri nag laa la wax looloo tax nag ba association commerçant ak industriel yii nee nañu luy njiy gouvernement bi mooy njàkk aa waaw sur sa année déggoo leen ma de suukar si dee lempo bi nga xam ne dañ koo teg nguuru Sénégal gi ñàkk na ci lu tolloo juróomi milliards bakkan bi ñu daal di dakkal laa lay wax ni taxe ba suukar sa fanweeri fan ci weeru août la démb ba fukki fan ak juróom ci weeru octobre bii di ñëw sud ko di yéene gis nga manifestation yi di dal ci kaw nguur gi le waaw contestation citoyenne wala politique bu ñu demee nag ba mbedd mi lée di am dëkk ci kaw nguur gi Fatou Ndiaye ne xoolal bouton ba ñu bësoon 23 waaye ñaxtu tamit day yàgg na ci réew mi de cosaan la fi de xanaa gisoo leen manifestation 88 wu taax ak nguur gi mais mbir mee yàqu rupture ginnaaw njëg yu seer yooyee inondation yi le soleil yéene kaa ne yoof Ouest Foire Dalifort unité 24 ak 25 parcelle ñetti mbaar ci de caaroy kaw amatul inondation ah, ah. le soleil ko wax de sur sa année Touba ña ngay jooy ndax lu tolloog juróom ci seeni doom la inondation yi rey allahu akbar ci ay njaboot yoo xam ne ña nga ca mbedd ma critique yéene kaa gis nga plan de scénario Macky Sall bi nga xam ne ci ay la ñu soxla day commission d'enquête enquête indépendante la ana xaalis bi na leer tribune yéene kaa ne juróomi ndaw yoo xam ne dañoo lab ci inondation ca Touba googe Dakar Times ne gis nga inondation yi lée recasement yi ak ndàmp yi ñu leen war a jox train express régional lu Macky bi dama ne la dugal na banlieue bi ci guta souffrance koo xam ni kon maara di taali laa la wax te ñu ngi waaj élection yi de last élection locale yooyu ak certificat de résidence yi waaw gouverneur u Ndakaaru Ndiaye Jël Joob nee ko joxe yéene kaa gi ne grande coalition de ki suba waaye waa PDS day waxaguñ lu leer guddi gu bët setagul ne waa PDS yi safuñu yàpp safuñu jënde Ousmane Sonko investir nañ ko Ziguinchor Cheikh Bamba Dieye ca Ndar 24 heures yéene waa gëm sa bopp day fekk nañu rek les quatre dëgg la parce que lu tolloog fanweeri parti politique ak ay mouvement waaw jox nañu ndigal bu gaan gay tani ngir mu dem na ca grande coalition opposition ba gay l'original bu parcelle bokkoon APR waaw à zéro rek l'éternel recommencement Macky Sall day bëggeewu ko woon nii de parce keroog ba mu jugee dafa bëgg a sànq nañ jiital Pastef di Ousmane Sonko waaw te la yee opposition bi nga xam ne day pourtant dañ doon nelaw waaw gis nga ay coalition nag yàgg na fi ba léegi ni la ña ca Moussa Diaw analyste waaw nee xoolal bu Macky Sall maanaam majorité bi woote waatee rek nga gis yenn ci ay leaderu opposition bi lée ne mes dem fekk leen Walfadjri ne waaye opposition Sonko mi la ñi ngi kon ab dossier Momar Diongo analyste politique la nee gis nga boo ci génnee Barthélémy Dias ñoom ñi des ñëpp duñ candidat aa buura fa jaar waaye nag ak nekk ñàkk candidat yëpp du ci def dara yàqalu leen dara di ci campagne locale yi lii quotidien Ahmed Fall Braya ca Ndar day Macky Sall dane ko na jàppale kon Mansour Faye waaye Ahmed Fall Braya daa bañ ba ci suuf laa la wax direct news ne élection locale yi sa a jaata asom jaata waaw kii daa transhumé maar di taali waaye bàyyi bi ñoo na kee la fa Macky Sall amoon na kës néew daal daw si si kër Massar kii dugg ci inondation yi waaw ah moo tey nag parce que bi ñoo na gëlee bërëbu Ousmane Sonko la te xeex ak Sonko nag ah beneen affaire la asom jaata yaa tey ñëw kër Massar Sonko rek du ay faux évidence seene kaa ne defar Kaolack ADK ay jeune te ne nee nañ Serigne Boub la ñuy jàppale ci élection locale yi la CCBM waaw jaamaal nee nañu seen doom ji Aliou Lo lañ mu nekk maire ca jaamaal réew mi ko tijéene waaye xale bu jigéen bii doon lee négéy lee négéy di jël ay xaalis kilifa ñetti weeru yàlla lañ ko tëj aw oh, l'observateur ne Dieyna day boo sàggane waaw danañu ko tëj na juróomi atu yàlla ci kaso allahu akbar cinq ans maa la ko wax moom Dieyna Baldé vingt-quatre heures yéene kaa day département Bambey waaw askan wa jug nañu taxaw yorin gu bon goo xam ni moom la Aquatec yor nag ndox ma ndox moomee o daal facture yoo xam ni non lii jéggi na dayoo ay facture yu seer lool ca yàlla <laughs> waaye gis nga facture ndox mi ak lu mu seer seer seer seer seer seer seer te waxuñ ci suñu pétrole bii njëg yi dafiy gën a seer rek waaw waaw parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal